a bénéficié des assises nationales pour être là où il est. des hommes d'affaires, des patriotes. qui se euh, sont pour organiser les assises nationales de ce pays. alors euh, kilifa kilifa bi mais quand même y a un minimum waay. pour man wax ji nga mujjee wax pour man loolu la cest dire il faut vraiment ku ngeen fi tudd keneen da ngeen koy tooñ. coow li coow li ndeyu mbill gi Macky Sall la. te ñëpp xam nañ nan la doonee Macky Sall parce que il faut que ñu dépasser ay woy dañ ko contre dañ koy xeex il faut que nit ñi génn ci loolu sérieusement parce que tey euh, groupe des médias wala Sen TV wala Zik ñoom ñooy nekk di subir injustice am na yeneen euh, y a yaa yaa y a GFM à côté nekkuñ di ko dund li Aïssatou wax c'est très important jaxase la sax ñu ngi jaxase askalu askan bi wooy parce que Youssou Ndour dafa bokk fële il faut que nit ñi jël euh, dépassionner le débat génne ko ci yooyu yëpp Youssou Ndour bi muy liggéey di teg entreprise tu la bien dit ñun ñëpp tey jii liñ taxawoo Ablaye Wade loolu bokk na yooyu bokk na ci li nga xamante ni moo njëkk a yëkkati nit ñi mooy quand il voulait toucher à Bara quand il voulait aussi toucher à Youssou Ndour parce que am na loo xamante ni nit ñi mënuñ ko nangu mënuñu ko comprendre parce que on ne peut pas prôner pour le patriotisme économique ñu gis ni étrangers yi ñu ngi ñëw multinationales yi ñu ngi ñëw di implanté wu fii di nangu lépp lu ñu yor mais mu am ci quelque yoo xamante ni ñu ngi ñëw taxaw ne noonu ñun dàquñu kenn mais ñun le peu qu'on dinañ fexe investir ko bokk ak sénégalais yi ñooñu boo leen bëggee tooxal sénégalais yi nga nekk di tooxal too nekkoo di tooxal benn nit je l'ai dit Bougane xaarul ci lii pour joxe dépensam <coughs> mais caméraman bi ñoom booy ah, ah, ah, alaaji Malick bi ma dajeel ci biti muy ñibbi euh, parcelle ci salaire bi muy am fii lay xaar pour passe au moins dem nañu xool ci ñooñu waa ji wax na léegi lim bi nombre bi nga xamante ni ñoom nga nekk tey jii di lor ñi ci war a jënd ay ordonnance weer bi dee na et tout et tout il faut que ñu jël affaire yi euh, ñu ñu dissocier li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy li buggaan doon. li muy li muy yore. Mhm. li muy gérer sénégalais yi mu ko bokkal. am na ku ci asthmatique léegi voilà mu ngi noonu garab léegi. voilà donc. asthmatique. donc Omar. mais dama eh, donc Omar problème bi mooy que ni. mooy mooy que ni le président de la république Macky Sall. xamante ni bi injustice bëggoon a dal ci kawam en 2009 10 Sénégalais yi dañu jóg taxaw ne du ci dal. tey jii moom kat di teg injustice ci kaw ay sénégalais yoo xamante ni dañ ne bokkuñu ak ñu moom gis-gis. man ak yow. non Pape Alé Niang. ñu jëlee ko kër muy dem. central. Ah. en direct. Ah. ñuy menacer Macky Sall. non non non c'est-à-dire euh, neel am na fa ah, non non askan bi. dafa am gis Macky Sall. biñ koy biñ koy tuumaal déplacement d'argent. par le président ànd ak kilifa nit ñi ñëpp. non ça avec lui ànd ak moom dem central. Euh, loolu moom. alors xam nga il ba benn moment il faut ñu leen di fàttali. bien sûr Omar Faye pour que ñu éviter yenn yi quand même. oui parce que war nañ ko dépasser ko. Omar Faye bien sûr imagine un débat aujourd'hui on parle de l'astuce de a des alors ce serait clair alors vous terminez fi may fi may fi may fi may daanelee Fatou Abdou mooy que nii bu ñu indexé kenn bu ñu tooñ kenn ki nga xamante ni mooy ndeyu mbili ji te nga xamante ni dañ ko jël lépp li nga xamante ni ñoo ko moom ñu ne ko yow lañ ci wóolu dénk la ko doxalee que niñ niñ bëgg nga doxalee que on a la droit de lui faire des rappels on a le droit de l'opposer on a le droit di ko critiquer mhm. on a la droit di ko def ay remarques il faut que mu accepter loolu nangu loolu bàyyi nit ñi ci seen teeyu bakkan mhm. parce que gis nga pour man ki Sall il a un seul projet c'est d'embraser d'embraser le pays. il n'a pas un autre projet parce que yii yii mooy lan yow état ak doole ji ak li ak ni mu toll tu as l'armée tu as la police la gendarmerie la justice tu as tout et tu peux utiliser ça contre euh, contre un citoyen contre un lambda contre un sénégalais bi nga xamante ni amul lenn lu dul bu affaire yi demee ba ëpp dañuy def benn masse résister dañuy def benn masse résister te bu ñu résister ñëpp xam nañ fu muy mujj. donc il faut qu'on arrête et il faut que ñu arrêter ki nga xamante ni tey jii moo nekk di pousse pion bi di bëgg a dugg ci dam bi. très bien dañuy dem ci noonu la ñuy demee ci suñu deuxième sujet euh, sujet ji euh, wax ci confrontation aji Sarr Ousmane Sonko que retenir de l'essentiel ci loolu nga xam ne amoon na talaata euh, askan wi bàyyi woon ci xel ci li nga xamante ne moom moo jëm ci mbir yi daanaka mu ëpp at boobu ba tey ñu ngi ciy wax dañuy door ak yow monsieur Sarré juste après la confrontation Ousmane Sonko a fait une déclaration et ci déclaration moom ci pom waxal boppam que ne euh, tontuwul laaj yi nga xam ne avocat Adji Sarr doon nañ ko ko laaj euh, déjà loolu euh, lan moo ko waral. Déjà, il n'a fait qu'exercer un droit, le droit de ne pas répondre ndaxte li ñu xam ci droit mooy l'accusé am na droit bañ a tontu ci ay même ci procès am nga droit ñu pose la question nga bañ tontu. loolu mooy bu njëkk bi bu ca topp mooy fi mu ko teg mooy dafa am firnde yu wóor yoo xam ne wan na wane ne ni warula tontu ñuy wax metre El Hadj Diouf pour la bonne et simple raison ñun ñëpp gis nañ ko xam nañu l'état d'esprit du bonhomme qui a qui passe tout son temps pas seulement à partir de mars deux mille euh, deux mille vingt et un <laughs> depuis que le PASTEF a existé ba léegi sa principale cible c'est Pastef et Ousmane Sonko saaga cest à bu fekkonte ni sax cible am la dina koy attaquer ci programme ci projet bi nga xam ne moom la ñu taxawal ñun ñu ko parce que nous som des démocrates nous nous acceptons des critique mais koo xam ne il n'a que l'insulte à la bouche kooku jàpp naa ni Ousmane war na jombale boppam di échanger ak moom sax en vérité rax ci dolli muy nit koo xam ne ni ko Ousmane waxee li mu continuer nekk avocat sax dafa war a jaaxal sénégalais yi parce que quelqu'un koo xam ne dafa dañu ko condamné waxuma dañ ko accusé de dañu ko condamné définitivement de manière définitive condamné ko comme un agresseur sexuel muy un danger publique ambulant kooku waruñu ko permettre muy exercer le métier d'avocat surtout di dugg ci dossier bu mel ni dossier wu dossier bu ñuy accuser nit ne ko da nga violé donc je considère que Ousmane a bien fait de ne pas lui répondre. Alors mais mais, mais monsieur Sarré loolu est-ce que du créer un problème dans dans un problème déjà. Lequel? parce que recuser aujourd'hui mm-hmm. les avocats de Adji Sarr recuser le procureur le juge d'instruction même nga am ci loo xamante ne segg nga ko ci moom est-ce que du gën a corser mbir yi. il ne les recuse pas il ne, il ne peut même pas les récuser il peut pas les récuser il peut pas récuser le l'avocat il peut pas récuser le parquet.